xam nañ ne itam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 mu liggéey ci yoon bi mu liggéey ci diine gi kenn mënu ko méngaleeg la kon euh, euh, nañ ko daaw def ko daaw yëpp def ko ak yëpp dañuy faral di ñëw ñu euh, ma ñëw ci dëkk bu sell ànd ak ñi ci nekk ñëpp ñu ci toog ak ñoom seen Cheikh Thioro Mbacké ak ñi jógee ànd ak jógee Dakar ñooy ziar si bokk bés bi ñu leen feddali suñu yéene ci diine bi yéene ci réew mi ak suñu yéene ci jàppale lépp loo xam ne day gën a jëmmal mhm. euh, euh, diine ji waaye day gën a jëmmal liggéey Sëñ Tuubaa mhm. bàyyeeku Dakar tey ñëw fas yéene ñëw ziyaare di leen gërëm ci waxtu yi ngeen ñu xamoon ndax xam nañu seen jamono ji xat na ñëpp bëgg nañ leen gis kon ñu ngi leen di masaw ci coono bi ñaan yàlla mu bàyyi yàgg yàgg suñu kanam ñu ànd ak wér gu yaram bu bëri bëri ñi nga xam ne seeni i nal la ci liggéey bi rawatina université bi ko yàlla mottali mm-hmm. yombal ko mm-hmm. li ngeen ci bëgg yëpp ngeen am ko ndax ndamu islam la ndamu Sénégal la mm-hmm. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax te tamit ñaan yàlla mu dugal ñu ci màggal gi jàmm bi jàmm lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi yàlla nanga ko eh, li ma wax léegi rek ci jógee it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 ñu ngi déglu ñu ngi suñu di wax ñu mbekk ñu mbekk Sëriñ Tuubaa ñu mbekk allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar